alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi damam nga jar na ñëpp jooy ña seeni daal dafay ganeen ba boti seen mu mel ni sang sant de muy ba xokkaram njaboot ke yëpp na téeréem muy tàggatoo est ce que lii de ka taw yaram ba fi ba xoo jaari ne seen te tabu maam alaaji ñaas man naan ko baay ko ma bi ba yëg naa na leen sax dina bay daal di nekk ay doxom mi ne bu yëpp dëgganooy bu ñaan ci laabu rabbana malaka yeeku na ami bay daal di masit ba naan allah ko bar mu ne jërëjëf mbokku téléspectateur fii nag néeg la si néegi aéroport Yoff yi waaye gis nañ seydaa ñëw sukk di ziare waaye tamit ñu fekk fii ñenn si ñoo xamante ne ñoo féetewoo fii si liggéey bi sëñ bi eh, gannaaw bi ñu la nuyoo Kossy TV Medina Baye mu ngi leen nuyu. waaw ñu ngi lay sant eh, bi doomu sëriñ bi ñëwee léegi dafa ne fii le sëriñ bi Baye mujje eh, bi muy voyage dernier voyage am fii la mujje génn waaw waaw nag ci bërëb bi lañuy liggéeyee waaw. fii voilà fi mooy dernier voyage am fii lañ mujjee kon mu nekk euh, lu rëy mbégte Mawlana Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass Baye fii ci aéroport Yoff euh, dernier voyage am si néeg bii nga xamante ne ni c'est la yaa nee na ci am ñëw di ñaan foofu la mujj a mu nekk mbégte kon laaxarwa gannaaw xalifa bi saahibul fayratu tijaaniya xaadimul ummati moom bi mu jëlee décision ne fii lay wàcc kon wàcc bi kon la woon démb mooy tey Seyda ñu ngi lay ndokkeel baax di la ziyaare euh, fii ci aéroport Yoff waaye li si gën a am solo ñu fekk la sa barab bi nga xam ne foo ko fekk rek da nga ko màggal muy sa waajur sa kilifa sa lépp di Mawlana Cheikhul Islam Aj Ibrahima Niass baay euh, sànq si njabootu Mawlana Cheikh Ibrahima gi si Abdoul Malick Cheikh Ibrahima Niass mu dëggalal ñu ñu ne barab bi fii la mujj a génnee si wayaasam tey nag nga sukkaat fi raam fi def ko na ko daan defee fee ci Medina Baye ban kàddu rek moom nga am pour nuyoo ko Sénégal ak àdduna bi rawatina ki nga xamante ne moom ngay tertu fii di sa bàyyi di sa lépp Cheikh Mouhamadul Mahi Al Khalifa. sant yàlla alhamdulilah ñu ngi julli ci yontam bu tedd bi salaa salaam di sant suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiyallahu taala anhu di wax ne alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf Baye jërëjëf Baye jërëjëf Baye jërëjëf Baye alhamdulilah di wax ne ñëw nañ pour gàttandu suma waajur ñëw nañ pour gàttandu ko pour sargal ko tam aussi ci liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéey na ko ci àddina bi yëpp parce que sama papa liggéey bi mu def nii ci monde entier yëpp a ko bokk àddina bi yëpp la ñeel parce que solution bi wax ne moom la radiyallahu taala fi indi moom la njabootam di wéyal rek di ko doxal looloo tax Cheikh Mamadou dem pour jubale ay jaami yàlla yoo xam lu mënuñu lim réew yi ni mu baree sax ñu ngi koy wax ci lim mais bari na ëpp na loolu parce que lim def ci capital bi rek lim def ci àll bi moo ko ëpp pour jubale jaami yàlla yi àddina bi yëpp nekk benn loolu moo ko yëkkati kon kooku bu defee lu rëy loolu ci àddina bi yëpp kon mm, Sénégal yëpp war nañ jóg mobilisé wu ñëw pour mm, gàttandu ko sargal ko waaye ndokkeli te ñaanal ko yàlla yàlla yàggal ko ci suñ kanam yàggal fi mboolem jabootu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala asalaamaaleykum wa rahmatullah الله ما يوار اللي الله ما يوار اللي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقل تيفي yéenay liggéey fay du baay bi ci ji barahama